ɗumen hannde euh, ko ñalawma gacci ganduɗa o hooreji leydi mbiteɗo makky sall suɓayi dow teddungal wi en faw ɗum sénégal en gakkino nguru sénégal en fijiri sénégal saabu yimɓe majjani ko woni koye dow mum wona lawol wona ndimago wona haqillantagal ema wax ci pël ni que bésu gàcce lañuy dund ndax kenn réerewul mbir ni Macky Sall lu muy doxal nii il fait du Macky maanaam ci li mu newoon da nekk ba tey le 15 février ba mun ba conseil constitutionnel waxee ne woon naa leen man wóoluwuma Macky Sall pour mu organiser élection yi bu ñëwee boo xalaat keneen ba mu génnee démb li mu wax ci mbirum dialogue bi jàpp naa ni Sénégal yépp am mbetteel ndax conseil constitutionnel daf ko tënk te du conseil constitutionnel moo ko tënk conseil constitutionnel dafa fàttali constitution Sénégal wax tënk ko moom ba muy aj élection yi sukkandiku simplement ci benn proposition bu parlement bi jot te parlement bi àddugu ci mu aj élection yi kooku pour ajji élection yi mu wéy waroon na exécuter décision conseil constitutionnel waaye dafa bañ dialogue bu muy laajte bu muy woote du rek ngir jàpp dat ngir aussi xool moom nu muy wéyalee mandam au-delà du 2 avril bu ngeen déggee li mu gën a tudd démb ci discours am bi mooy article 36 2 constitution bi nga xam ne day ne tant que tànn gu ñu ku koy wuutu moom ba installé kooku moom dina wéyal ki yóbbu te nee na loolu waxtaan bi daf ci war a am solo mooy ñaari tomb yu mu teg ci waxtaan bi beneen bi mooy amnistie amnistie mooy lan mooy mbirum lépp lu fi xew ci réew mi te nga xam ne ay njombe yu dul jeex ñu wax ko pétrole bi gaz bi rapport Covid bi ñu fi dee ñoo ñëpp nañ ko naxasaay pour lan pour moom mu mun a am jàmm dem ndax même moom bu demee ku ko wuutu war na mën a bàyyi prisonnier politique yi nga xam ne ak yeneen prisonniers yi nga xam ne du ñooy ay prisonnier politique nag am na ci ñoo xam ne nag ay vrai casseur lañu dañu def ay njombe kooku ku ko wuutu war na organiser dialogue xool ci yan anam la ñuy libéré ñi nga xam ne par centaine ci condition yu atroce bu fekkoon dafa am yërmande du démb lay découvrir ni am na ay prisonniers je voudrais dire très rapidement que le président de la République est dans un jeu déjà connu et il ne trompe plus personne et je m'étonne même que des ambassades puissent donner crédibilité à son appel qui est un véritable appel trompe, trompeur une véritable diversion ce qu'on attend de Macky C'est dans le cadre de la constitution actuelle qui n'a pas changé d'un iota. C'est d'organiser le plus rapidement possible en fixant la date. Toutes les conditions sont réunies. Fixer la date de l'élection présidentielle comme lui enjoint le Conseil constitutionnel le 15 février. Il s'y refuse et veut organiser au contraire un dialogue qui lui permettra de changer le processus. Non seulement changer le processus, mais en même temps de valider le fait que malgré qu'il est donner l'impression de répéter qu'il quittera le 2 avril. Il ne l'a pas dit de manière que le 2 avril, il y a l'article 36.2 de la Constitution sur lequel il faut qu'on lors de son fameux dialogue. Pour lui permettre éventuellement que les gens lui disent, les tra communicateurs traditionnels, les religieux, les recalés qui va inviter et constitueront, qui verront en lui une planche de salut, mais qui seront aussi une planche de salut pour lui. Pour que tous ces gens lui disent, vous êtes le plus beau, le plus gentil, le plus apte à continuer la transition. Et donc l'article 36.2 euh, de la Constitution nous permet de l'envisager. Allons voir le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui est plus ridicule de dire que allons voir le Conseil constitutionnel après notre dialogue alors qu'il refuse et qu'il s'assoit sur des décisions du Conseil constitutionnel du 15 février Qu'est-ce qui est plus ridicule et dérisoire de dire nous irons voir le Conseil constitutionnel alors qu'il s'assoit sur des décisions du Conseil constitutionnel. Ce président n'est pas sérieux. Et c'est pourquoi je pense plus que jamais que c'est des manifestations populaires. C'est le refus de la population d'obéir et de suivre ces injonctions qui vont le faire partir. Parce qu'il a avec lui une petite clique de personnes qui sont prêtes à le suivre et à mener le Sénégal jusque dans les profondeurs qu'ont traversé certains pays africains. C'est pourquoi nous disons non au dialogue, du ñu dem ci dialogue bi, mais nous disons oui à un plan d'action que certains de mes amis ont déjà décliné, sur lesquels je ne reviendrai pas. Nous organiserons notre propre dialogue. Le dimanche, nous ferons des actions et toutes les actions qui ont été appelées cet après-midi, demain, par d'autres plateformes, nous les soutenons et nous les encourageons. Vive le peuple sénégalais!